benn rakk maanaam bi faatixa jeexee mu teg saar tegaat ci saar wala génn ci saar dugg ci weneen wala rukoo lu jiitu saar wa di mat yooyu yëpp fala sujuda alayhi fi cheyin min hadihi al masail alsalaas nga ne ko ndax lan mu ne ndaxte jàng lu ëpp aw saar ci ab rakk benn rakk wala jàng aw saar wu mat naka noonu génn ci saar dugg ci weneen wala rukoo lu jiitu saar wa di mat mu ne ndaxte matal saar wa dañ koo sopp rek mu ne alxamis nee na xazaw naa azana wa maana salaasu miatin min alsahaba fa kaana rajulu minhum yusalli bina fa yaqrawu al ayati min alsura suma yarkaw nee na xeex nañu ànd ak ñetti téeméer ci saaba yi amoon na ci ñoo xam ne ba ñu daan jiite dañu daan jàng ay aaya rek ci aw saar daldi rukkoo ñu jële it ci ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yonent bi jàng na alfatiha wa aaya fi kulli rakaatain hadis bi rawahu daar qudni bi isnaadin qawi buxaari wax na ne ca bunt ba baabul jamci bayna suuratayni fi rakaa wal xiraa bil xawaatim wa bi kulli suuratin qabla suuratin wala wa bi suuratin qabla suura wa bi awali suura yooyu yëpp am na fekk saar nga jël la ca mujj mel ni araayta nga nga kàbbar jàng faate ba mu jeex nga daal di ne fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim saahuun alladina hum yuraauuna wa yamnacuuna almaauun daal di rukkoo daal di sujjóot loola lu jàppandi la naka noonu jàng aw saar lu jiitu aw saar naka noonu tàmbali aw saar ca bopp ba yooyu yëpp lu jàppandi la juróomeelu tomb bi mu ne joxoñe loxo wala bopp loolu ñu ngi ko jële ci xadiisu jaabir radiallahu anhu mu ne anna rasulallahi baxasahu li xaaja summa adraktuhu wa huwa yusalli fa sallamtu alayhi fa ashaara ilayya fa lamma faraxa naadaani wa qaala innaka sallamta alayya fa atazara baada al ishaara bil ishaara rawaahu muslim yonent bi daf koo yónni woon ba mu ñëwee daal ne ko assalaamu alaykum fekk yonent baa ngi ci julli yonent bi daal di koy joxoñ ne ko toogal nee wala mu joxoñ ko ne ko may ma ma àggale waaw yonent bi sëlmalee ne ko yow da nga maa jul da nga maa nuyu ma gàntu moo tax ma joxoñ la junj la hadis boobu rawaahu muslim ci hadisu al bayhaqi mu ne aw ma alahu bi rasihi aw ma alahu bi rasihi daf ko yëngalal bopp ba boobu hadis tam booleen boolee ñoom ñaar loolu fi la borom téere bii di al axdari jële ne kuy julli joxoña loxoom mbaa mu joxoña bopp ba loolu du yàq julli gi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon def na ko ci hadisu muslim bi def na ko ci hadisu al bayhaqi bi kon nag ma baamtu li ma jot a wax wa man karrara wa man jahara ku biral fil xunuuti ci xunuut fala sujuuda alayhi dara du ko war walakinahu waaye nag li xew moo di yukrahu dana ñu sib amduhu tey ko wa man zaada ku dolli assurata saar way tege ca fatiha fi rakaatayni ca ñaari raka ya al axiratayni yu mujj ya fala sujuda alayhi dara du ko war sujud waru ko wa man samia ku dégg zikra muhammadin turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fekk moom ba mu koy dégg fi salaati mi ngi ci biir ak julli fa salla mu daa di julli alayhi ci yonent bi fala shay'a alayhi dara waru ko sawaa'un moo xam kaana saa'iyan dafa juum moom mi doon julli ci yonent bi aw aamidan wala daf koo tey aw xaa'iman wala fekk ko taxaw aw jaalisan wala fekk ko toog fu mu ko mën di fekk rek du yàq julli ga ñeenteel bi wa man qaraa suuratayni ku jàng yaari saar fa aksara wala sax lu ëpp yaari saar fi rakaatin waaxida ci benn raka aw xaraja wala mu génn min suuratin jóge ci aw saar ndax ñàkk koo mokkal ilaa suuratin dugg ci weneen saar ndax woowa la gën a yab aw rakaa wala mu rukoo qabla tamaami suurati lu jiitu saar wi muy jàng di mat fala shay'a alayhi dara du ko war fi jami'i zalika ci mboolem yooyu mu def wa man ashaara ku joxoñ wala junj fi salaatihi ci julleem bi yadihi ci loxoom aw ra'sihi wala boppam fala shay'a alayhi dara du ko war ci yooyu yëpp بقرآني وإيماني
loolu kon mooy xaaj bu njëkk bi te mooy atte biral xunuut atteb dolli aw saar atteb di julli julli ci yonent bi ci biir julli ga atteb jàng yaari saar mbaa lu ko ëpp ci rakka atteb joxoña sa loxo wala sa bopp ci biir julli ñaar lu xaaj bi wa man daxika fi salaati batalat sawaun kaana saahiyan aw aamidan ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله عز وجل وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله فهذه صلاة المتقين ولا شيء عليه في التبسم وبكاء القاشع في الصلاة مختفر atte bi mooy kii da doon julli daal di ree wala boog ngeen baal ma tëb naa tuuti ndax waman kararal fatiha la woon wa man karara alfatiha ku baamtu fatiha saahiyan te dafa juum nu muy def mu ne sajada baada salaam bu sëlmalee lay sujjóot maanaam da doon julli mu jàng fatiha ba mu jeex jàngaat ko ba mu jeex wala mu jàng ko ba mu xaaj jàngaat ko ba mu xaaj kooku day sujjóot baada salaam wa in kaana aamidan bu fekkee moo ko tey nag jàng ñaari fatiha ci saar ci aay raka bi fa zahiru la feeñ ca wax ja ginnaaw werante wu gudd al botulaanu moo di yàquk julli ga kon julli ku ko tey def ca ñaari fatiha julli ga yàqul soo ko teyul da ngaa yokk ab farata kon da nga koy sujjootal baada salaam baada salaam mooy bi nga taayaa ba sëlmal nga sujjoot wa man tazakkara assuura ku fàttali ko saar wam waroon a teg baada alfatiha ginnaaw fatiha da doon julli tusbaar mu jàng fatiha war caa tegu saar mu fàtte ko diru koo ji kañ la ko fàttaliku baadan xinaa ihi ginnaaw ba mu sëggee ila rukoo jëm ci rukoo nu muy def mu ne fala yarjiu ilayha du dëpp di ca dellu foofu boo ko seet loolu tax moo di rukoo farata la saar bi ngay teg ci faatiha sunna la jëm ci farata bàyyi ku ñëw ci sunna dee su ko def waaw jëm ci farata bàyyi farata ja ndax dabu ju sunna dee su ko def moo tax bi nga sëggee ngir dem rek demal te bàyyi fa saar wa te xam ne am na fa lu fa xew moo tax fa laa yarjiu ilayha boobu mooy boobu wa man tazakkara ku fàttaliku asirra njàngum yalu da doon julli tisbaar da koo war a yalu muy julli nag tàmbali di jàng ca kaw te tisbaar lay julli jàng ko ba faatiha jeex mbaa ba mu xaaj awil jëhra wala mu doon julli timis baagee war koo wax ci kaw mu fàtte ko doon ko wax ca suuf ba faatixa jeex mbaabam xaaj waaye bi mu koy fàttaliku nag xabla rukuuci mu jiitu muy téye ci óomam wala muy sëgg di jëli ay óomam nu muy def mu ne aadal xiraata day baamtu njàng mam jàngoon jàng na ba mu yàgg muy rukoo fàtte ne dafa waroon a yalu te biral na wala dafa waroon a biral te yalu na aadal xiraa fa in kaana zalika fi suurati su fekkee loolu ko dal ca saar wa war a tege ca faatiha la ko dale aadaha da koy baamtuwaat wala sujuda alayhi te sujud du ko war ndax saar wi bu ko jàngee ñaar yoon du wàññi dara wa in kaana zalika fi lfatiha bu fekkee li ko dal dafa nekk ci fatiha te fatiha farata la aadaha daf koy baamtuwaat jàngaat ko wa sajada baada salaam mu sujud ginnaaw bi mu sëlmalee ndax daa yokku julli gi wa in faatahu bir rukuuci bu ko faatee nag fàtte naa biral wala fàtte naa yalu ba rukoo na ba noppi dafa rukoo ba noppi daal ni ah man kat timis laay jàng te ca suuf laay julli te ca suuf laa doon jàng wala mu ne man kat tàkkusaan laa doon julli te ci kaw laa doon jàng waaye boobu bi mu koy fàttaliku nag mi ngi téye ci umam ba naan subhaana rabbil azim ku waroon na jàng ci suuf boo jàngee ca kaw da ngaa yokk ku waroon na jàng ca kaw boo jàngee ci suuf da ngaa wàññi te ku yokk da ngay sujjoot baada ku wàññi da ngay sujjoot xabla olof nee na wàññi xa yokk ba wàññi yokk xa wàññi xa muy xabla yokk ba muy baada boo boolee wàññi yokk nag xabla loolu la ko mag ñi daan jàngale ñi ñu koy jàngal tabarkàlla wàññi xa yokk ba wàññi yokk xa soo ko xasee mokkal fi ne booy julli rek bu luy buy xew rek ngay xam boo ciy def waaw mag ñi ñu mën na jàngale leen tabarkàlla mu ne sawaa'un moo xam nag kaana yalu ba wala biral ga dafa nekk min al fatihati ca fatiha aw wala boog as suurati nekk ca saaroo wax daxaa moom dong bu ñu bëggee leeral loolu moo di ñetti masala la borom téere bi waxati fii mooy takraar fatiha fàttaliku saar ginnaaw ba nga sëggee ci jëm ci ruko fàttaliku yalu ak biral lu jiitu ruko xam nañu ne fatiha ci ponk julli la bokk farata la ci moo tax ku ko baamtu te juum wala ruko wala sujud wala yudut yooyu ci ponki julli yi kooku daa war a sujud baada salaam ndax hadis bi romb te di hadis abdullahi radiallahu anhu buxaari yu nettali ko mu ni annahu alayhi salatu wasalaam sajada baada salaam indama zaada rakaatan xaamisa sahwan yonent bi sujjóot na ba mu dollee rakkaab juróomeel te juum yóbbe ko ko sallallahu alayhi wa sallam naka noonu zahir te mooy la feeñ moo di yàqu julli ga ci ku baamtu faatiha te tey ko mu ne tey googu mu ko tey def ko muy ñaari yoon mooy la yàq loolee di julli ga ba demee ci xadisu abdullahi ibnu bujayna boo xam ne bii rawahu albuxaari wa muslim mu ne loolu xew na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hidayatul mutaabidi saalik téere boobu ca la wax ji ju nekk mu ñëwaat ci ñetti masala ree ci julli muñ ci julli jooy ci julli wa man daxika ku ree fi salaati ci julli batalat julli ga yàqu na waaw di julli ree ree nag mooy kex-kex maanaam xaqataay ndax muuñ ak ree du benn léegi nag borom téere bi yal na yàlla fay ko mu wax fi lu am solo mu ni sawaun moo xam kaana saahiyan dafa juum aw aamidan wala tey ko julli daal ku ca ree yàqu na moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko waaw mu naka noonu julli boo doon julli yokk ca lu tal ni julli ga yàqu na moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko nga ne ko haa mu ne dama ne wala yadxaku warta ree fii salaatihi cig julleem illaa xaafilun lu dul ku sàggan lool ku sàggan mooy julli di reetaan ndax ki nga taxaw ci kanamam muy jalla jalaluhu li nga fanaane lépp mu xam ko nga ñëw suba di julli ñaar rakka ne allahu akbar war a jàng alfatiha ñëw ba ci iyaaka naabudu yow dong laa fanaanee jaamu mu war laa tontu waaw wala déet te li nga fanaanoo xam na ko nga ne ko iyaaka yow dong abudu laa fanaa naabudu la ñuy fanaa yendoo jaamu tey ah kooku bu fekkee dafa ne ci biir di reetaan lim nekk xamu ko moo tax alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi nee nañ daana kàbbar di jàng nga ne ci peggam day mel ni da ngay dégg xol bi ci biir di bax ndax tiitaange ci li muy def mu ne kon nag ku sàggan rek mooy ree ci julli moo tax ñu bëgg boo julli fayal télé fayal rajo fayal yooyu yëpp ndax mën nañu def benn publicité bu reelu nga ree mën nañoo génn ci télé bi leneen lu la neex nga ree te yooyu yëpp julli ga dafa yàqu mu ne ku ku sàggan mooy ree ci julli mutalaaib ab fokat wal mu'minu ku gëm yàlla daal isaa qaama li salaati bu jógee bëgg a julli aarada day faxas day fëgg ba mu set bi qalbihi ci xolam an kulli ma si wallaay lépp lu dul yàlla jalla jalaaluhu loolu nag mooy fi mbir mi nekk ku ragal yàlla dëgg bu ne allahu akbar xolam génn àdduna foofu nag la nit ñi dara wantee ci julli yonente bi nag gis ko julli ba noppi am zéro virgule cinq am ñoo xam ne duñ ca àgg am ñu ko gën a tuutile di tuutile rek waaw am na kuy jul nag bu ne allahu akbar mën naa am mu am un yonent bi nag mu ne nit dana julli juróom benn fukki at du du am benn julli bu baax maanaam di julli di julli ba am soixante ans te musuloo am dix maanaam di siir diis musoo koo am wala sax musoo at mi julli ba am cinq siir diis nee na am na kuy julli juróom benn fukki at du ko am allahu akbar kon daal al mu'min isaa qaama lis salaati arada bi qalbihi an kulli ma siwa llahi azza wa jalla wa taraka dunya mu bàyyi adduna wa ma fiha ak li ci adduna lépp waaw bàyyi adduna ak li ci adduna lépp xata yahdura bi qalbihi ba teewal ci xolam nag jalaalallahi màggum yàlla subhanahu wa azamatuhu ak rëyaayug yàlla wa yartaida muy lox nag qalbuhu xolam xol bi di lox ndax bi mu ne allahu akbar xoolal sa allahu akbar yi ñu lay mujj defal sa ñeenti rakkaa yooya bi mu ne allahu akbar xoolal bu ñu la tëralee nga ne ñay ci kanam ñi lay jullee wa tarhaba nafsuhu bakkanam tiit ruuxam tiit min haybatillahi ngir màggaayu yàlla fa haadihi julli gii salaatul muttaqiina mooy julli ñi ragal yàlla lii mooy julli ñi ragal yàlla suñu ne allahu akbar seen xol ñu fëgg ci lépp lu dul yàlla bàyyi adduna ak li ci nekk lépp teewal ci seen xol màggaayug yàlla teewal ci seen xol rëyaayug yàlla seen xol di lox seen ruu di tiit ngir màggaayu suñu borom muttaquun yi di liñ daan julli nañu benn waay dafa amoon góom ci tànk bi ku ragal la woon ñu bëgg koo faj nag kenn mënta jot ci boom jenn doom ji jigéen ne leen sama papa bu ngeen ko bëggee faj bàyyi leen ko ba mu kàbbar di julli dina tiit tiitaange dina tiit tiitaange loo xam ne bu ngeen doon dagg tànk bi du ko yëg ñu dem fab jaas yi def ci taal bi di tàngal naka mu ne allahu akbar ñu ñëw defar yi defar yépp ba mu sëlmali la door a xam waaye ci biir jullit moom yëgutoon na ñu ngi defar tànk mi ndax tiit suñu borom waaw kon nag jullee nga noonu tabarkàlla boo ko këpp këppalee du baax yooyu yépp du ci am solo wala shay'a alayhi dara du ko war nag fi tabassumi ci muuñ di julli muuñ loolu moom wàññiwul dara wa bukaawul xaasici jooyu ku ragal ragal yàlla ci xol fi salaati ci biir julleem muxtafarun luñ ko baal la waaye baatu luñ ko baal it dafa am solo moo di ndekk julli jooy ca du sunna jooy ca du farata waaye nag dañ ko koo baal maanaam baatu muxtafarun dafay tekki loolu kon nag ngir leeral borom téere bi nee na rey ci julli ku ko def julli ga yàqu moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko ku sàggan rek te bërim po mooy rey ci jullee te it gëm yàlla su jógee fas yéenee julli xolam lay fëgg ci àdduna tiit màggaayug yàlla ak yooyu xam ngeen ne ree ci julli am pola ak ragal yàlla nekku ca hadis ba ci jaabir radiallahu anhu def ne laa yaqta'u salaata alkasru walakin yaqta'uha alqahqaha mu ne julli muuñ du ko yàq waaye xàqataay moo koy yàq ama buka muy jooy ya muxtafar ndax hadisu abu mutraf radiallahu anhu wala matrif mu ne raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa fi sadrihi azir ka aziril mirkali min al buka mu ne fekk naa yonent bi alayhi salatu wasalaam mu di julli ma dégg ci dënn bi ak sab sab gu mel ni cin luy bax ndax ay jooy hadis bi axrajahu alxamsa ila ibnu maaja wa sahahu ibnu xibbaan wa li xadisi abdullahi ibnu shadat mu ne sami'tu nashija omar bn alxataab wa ana fi axiri sufuuf yaqarahu innama ashku bassi wa xusni ila allah albuxaari mu ne man maa dégg omar di di di di yikkit te booba maa ngi ca ginnaaw sàppe sa ma dégg ko muy jàng ci alquran innama ashku bassi wa xusni ila allah kon mbokk yi loolu moo nekkoon suñu bind suñu dars bi te mooy bindu laxdar yu tey bi incha allah su ko defee bindu laxdar yi bi ñi ngi woon ci buntub asahwu muy buntub jamaj xam ngeen ne jamaj mooy nit kuy julli far juum borom laxdar yu tabarakallah yàlla na yàlla fay ko loolu ko borom xam-xam ba waxoon rek xanaa ñu dellu ca nee na inna kitaab al axdari min abraki kutubi l fiq siyama fi biladina haadihi fa huwa kitaabun qayimun yaxmilu guraran nafisa min axkaami salaati kaada maa sigari xajmihi يغني عن المطولات وقلما نجد كتاب فقه جاء بالبيان الشافي في مسائل السهو مثل هذا الكتاب فإننا ندعو بالخير والغفران على مؤلفه الجليل الفقيه النبيل الشيخ عبد الرحمن الأخطري رحمه الله نعنى تيرب الأخضري mi ngi bokk ci téer yi gën a barkeel ci téere fiq yi téereb laxdari mi ngi bokk ci téere bi gën a bark téere yi gën a barkeel ci téere fiq yi rawatina ñun ñi dëkk ci sowu jant mu ne téere la boo xam ne bii bu am dayo la yanu na ay yiw yoo xam ne yu seer la ci attee julli li muy tuuti tuuti daal daanaka doy na sëkk ngay dem ci téere yoo xam ne yu dañoo yaatu lool te guddal mu ne néew na lu ñuy fekk téere fiq mu indi lu sete te leere ni masalay jamaj ni ko téere bii indee moo tax mu ne ñun ñëpp daal war nañoo ànd ñaanal njëggal ñaanal yiw ka ko taalifoon ka déggoon fiq ka góor gu yiw ga sëriñ ba abdourahman al axdari mu ne yàlla na yàlla yërëm ko amin incha allah bu ma defee thème bi ba noppi dinaa jëmale ay laaj ci yéen yéen way déglu yi nga xam ne da ngeen faral di topp laxdari bi xanaa ñu jàpp mbaxana jàpp mbaxana mooy bind bi weesu woon lan ca jotoon a jàng dañu jàngoon ne ku biral xunóot dara du ko war waaye sib nañu tey ko maanaam ku julli suba ca sa ñaareelu làkk nga ciy xunóot ku yokk aw saar ci ñaari rakkaa yi mujj nga jàng faatee teg cew saar kooku tam dara du ko war du sujjóot ku doon julli dégg ñu ne muhammad nga daan ne sallallahu alayhi wa sallam tiyaa ngi ci sëg julli moo xam dangaa juum moo xam yaa ko tey moo xam yaa ngi taxaw moo xam yaa ngi toog fala shay'a alayhi dara du ko ci war ku jàng ñaari saar mbaa lu ko ëpp ci benn rakk mbaa mu génne ciw saar dugg ciw saar mbaamu rukkoo lu jiitu saar way mat lii léppit dara waru ko ci ku doon julli ñun la ana satala gi nga joxañ sa baaraam fa satala ga nekk wala ñu ne la waaw tusbaar nga julleem nga yëngal sa baaraam ni déedéet wala ñu ne tàkkusaan ngay julli nga yëngal sa bopp ci ne waaw waaw yooyu yéppit fala shay'a alayhi dara waru ko ci ku baamtu fatiha te juum julli gi da koo yokk day sujjóot baada salaam su ko tayee nag alal masabil maliki yi la ca gën a feeñ mooy julli ga yàqu na nga tey jàng ñaari faate ci sa julli julli ga yàqu na maanaam ci ci rakka ku fàttali ku faat aw saar ginnaaw bi mu jàngee fatiha ba noppi ba rukkoo ba noppi door a fàttaliku ne man kat waroon naa teg saar ci fatiha te teguma ko ca kooko du wàññeeku naan naa ko defi déedéet ku fàttaliku yelu bu mu war na def maanaam jàng ci suuf wala biral bu mu war na def balaa muy rukkoo day baamtuwaat njàng ma bu fekkee ca saar wa rekk la te du ko sujjóot bu dee ca faatixa nag da koy baamtu ba noppi waaye day sujjóot ba'da salaam ndax daa yokk bu ko faatee ba mu rukkoo nag dafay sujjóot ngir bàyyi biral qabla salaam sujjóot ngir bàyyi yelu ba'da salaam waaw qabla salaam bee bi ba'da salaam moo xam ca faatixa la wala ca saar wa ku doon julli xàqtaay ree ba maanaam tex-texi julli ga yàqu na kuy julli di tex-texi ca julli ga julli ga yàqu na moo xam moo ko tey moo xam teyu ko julli ga daal yàqu na moo tax borom téere bi yàlla na yàlla fay ko mu ne ku sàggan rek mooy ree ci julleem te bari am po mu ne ku gëm ne yàlla am na nga ni allahu akbar gëm ne jàkkaarloo nag yow soo jógee ci julli da ngay yëlëb sa xol bi ci àdduna lépp lu dul yàlla nga yëlëb ci sab xol bàyyi àdduna fële ba mën a teewal yàlla ci sa xol subhanahu wa taala teewal ak màggaayam say cër di lox sa xol di tiit màggaayu yàlla jalla jalaaluhu